ci wàllum bâtiment tabax ak njaayum terrain yéen ñi bëgg tabax seeni kër ñëw leen fii ci Simbad lu ngeen soxla ci ciment ak nu mën a toll ci xeetu ciment yépp am na nañu fer béton suuf ak brique ba ci matériel électricité yu garanti te wóor am nañu espace lumière yu dul gis faneen ay lumière yu rafet lool oh xoolal ma lii rek wàllum peinture ñoo ci teg loxo xeetu peinture bu ngeen dégg ci àdduna bi boo ñëwee fii ci Simbad fekk ko fi ci wàllum accessoires pour vous mettre une installation impeccable Simbad seeni carreau de très bonne qualité carreau bu bëgg am na fii ci Simbad ci qualité ak quantité ngir taaral sa kër fii rek la ci Simbad ñoo ngi fii ci cité Noflaye après Sangalkam ci route de Bambilor téléphone 33 866 47 98 ou 77 201 83 93 wala 77 374 67 98 wala ngeen woote ci 77 056 59 76 Simbat, le choix de la qualité. ñu dikkaat ak yéen ci seen plateau matinal avec seen deuxième partie bi nga xam ne nag saa ne dañ fiy dalal ki nga xam ne rek moo di oustaz Miftah moom nag saa ne day ànd ak ñun ci thème d' yi nga xam ne des fois da koy gis ci vie sociale bi waaye da koy gis ci famille yi mu doon loo xam ne nag du yem si ñun kese parce que dañuy bëgg saa ne rek ngeen siy jëriñu ñu bàyyi rek lay mu daal di dalal ki nga xam ne moo àjjuma mubaarak euh, moom sax àjjuma lay ñëw te daanaka bu ñëwee nag lu yu am solo lay lay waxtaane mhm. di di waxtaane tamit ay mbir yoo xamante ni ku ko seetaan wala nga déglu ko di nga ci mën a jëlee ay leçon waaw moom mag mooy imaam Miftaax oustaz Miftaax mën a imaam sax oustaz imaam ngi diis na moom ah, euh, euh, ñu ngi laa ñu ngi lay nuyu imaam maa ngi lay fay bu baax Ablaye di fay Dior mhm. di leen nuyu baax di leen ziyaara di leen béggee di leen kontaanee di leen ziyaare ci àjjuma ju tedd ji nga xam ne ci lañ nekk nga xam ni mooy bis bi nga xam ne yàlla moo ko barkeel ci mboolem jullit ñi di ñaan yàlla mu defal ñu ci jàmm defal ñu ci tawfiix di leen wax ni ñu ngi leen di seetaan mm-hmm. te waxtaan wi wax dëgg yàlla am na solo te mi ngi tege ci ay yoon kon yàlla yàlla taxaw leen ci zaahir taxaw ci baatin taxaw ci mit ñi nga xam ne ñoo leen di topp ci internet bi mm-hmm. di leen béggee di leen kontaane ñooñu ndax ñoom rek ñoo tax ngeen di wax bu du woon ñoom ba léegi xaddi ngeen kon ñooñu it yal na yàlla yombal leen connexion bi nga xam ne moom lañ leen di seetaanee waxtu wu nekk yàlla nañ koy am yal na leen yomb lool te gaaw lool tamit di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñi ngi seetaan ci plateforme yi nga xam ne Tacko TV am na ko yëpp mm-hmm. di leen bégge bu baax a baax di wax ni yàlla yàlla defal ñu jàmm ba li ñu war a waxtaanee yàlla tënkal ñu suñu làmmiñ mm-hmm. ba duñ ci duñ ci duñ ci mooy lay lay njub ñu ñu dégg ko ci jàmm jariñoo ko ci jàmm yàlla defal ñu jàmm bañ dajawaat fi ci beneen ajum incha allah. tey tey tey tey tey nag dañoo indi benn. Mhm. Euh, waxtaan woo xamante ni sujet boo xamante ni mhm. daanaka mu mel ni. Mhm. tey euh, euh, dafa bari ci ci réew mi. maanaam comme man ma am sama sama sama benn xarit. rek ñu séq benn affaire rek dama daal di ko ci wax. dem na sax ba ñoo xamante ni dañuy jël suñu amee séq ak nit dara mën nañ ko yóbbu ci sëriñ sëriñu kii sëriñtu ko ba dootul wax jëm boole la ak ay nit ba nu koj la def la dara hmm. ñii kii parce que dañuy séq kii maanaam daal baat bi daal muy baatu wor hmm. kii séq na benn affaire nga ma nga ma wor la hmm. man ak comme man ak Miftaax man ak Oustaz euh, Oustaz benn mbir ma wor la man maanaam ma jaay ci yëfik baat doolo ba wor la maanaam li ma li ma li ma mbir mi ni nga xamante nii ñun nan nin ko war a bokkee léegi man damay jël bëgg a jël lépp aaki moo ko maanaam wor la li waxante woon defuma ko jël mbir mi aaki moo ko mhm. dem na sax ba ci kër yi mhm. dem na ba ci eh, alal yi nga xamante ni nit da koy liggéey ak nit tey mhm. wala si société yi nit da koy bokk ak nit mu jaral ko mu def ay affaires yoo xamante ni maanaam dalay wor daal maanaam tey baatu wor laa bëgg nga dimbali ñu ci tuuti rek xam ne eh, ñu xam ne baatu wor daal eh, nekk loo xamante ni lu baax la waaw ndeysaan loolu de moom oustaz ak ku dul a ci yam ñëpp a ci mën a waxtaan wor moom arab mi ngi koy wax alxiyaana mooy ñaare foo koy fekk ci relation nag relation bu yàgg lay doon te relation boo ko fekk relation ba déparewul woon neex mhm. ay way juga ki daanu rek ñoo ko daan seq ñoo xam tey ñu am kaasu kafe bokk ko suba ñu am mburu bokk ko surtout ginnaaw suba ñu am attaaya tegandoo ko mhm. bokk néeg néeg sax kenn mënu ko woon a fay dañ koy bokkandoo mhm. ñooy bokk ay yére ñooy bokk genn kër gu ñuy dundee daanaka lu waay am alalu moroom ma la téléphone sax daanaka da ngay wax alma woote mm-hmm. yooyu yëpp dañ koy bokk parce que situation bi jamono boobu loolu foofu la tolloon mais bu ñu demee ba situation sensé nag mm-hmm. jamono sensé am ñu commencé di jekk am ñu commencé di am lu ñu amul woon mm-hmm. am di commencé di yëg ci seen bopp lu ñu yëgul woon moo xam yëg-yëg ba am am am la dana koy waral moo xam succès la dana koy waral yaa ngi commencé di feeñ foo dul woon feeñ laay ay njéeme la daan yor romb fii ci mbedd mi kenn ko wax laay kenn daawu ko faale lay takk li di ko ñafe ba tey laay di feeñ ci télé ñu commencé fekk tamit lay tamit moom it commencé na di yëg boppam fekk da daan rob da daan fréquenté léeg-léeg mu romb jaaykatu café bi sax këf fa ab kaas te daawu ko fay dañ ko daan baaxee rek laay dem ba yëg se dootul jaar ci mbedd yooyu yooyu yëpp war la yooyu yëpp ci biir war la waaw nekkoon ci koñ di ànd ak gars di dem ci football bi bokk ak ñoom terrain bi bokk ak ñoom yëg-yëg xëy am lu la wuy si rek nga wan leen ginnaaw mun na nekk war lee léeg mm-hmm. mais tamit léeg-léeg tamit mun nañ ko comprendre neneen mm-hmm. parce que tamit nit tamit euh, bu teraangaam yokkoo rek ay soxlaam dañuy yokk bu ko defee tamit ku dem ba mënoo jot ci moom am yoo daan yu la daan yomb ci moom mm-hmm. wëlbati ko di la jafe ci moom bul jàpp ne tamit war la bul jàpp ne tamit daf la doye dal waaye xëy na dafa am fu mu tolloon am fu mu nekkoon te dépassé ko léeg-léeg tamit loolu yàlla da koy def nit ki nekk ci benn étape ba ci ak mu dépassé étape boobu kooku du war yéen daan ànd di defandoo lépp chaque jour yéen a daan nekk chaque instant yéen a daan nekk heure bu ngeen bëggee gisee da ngeen di gisee nga dem ba ci yàgg semaine bi boo ko ci bëggee gis benn yoon lay doon wala année bi sax boo ko ci bëggee gis ay yoon yu néew lay doon dug mbanam dafa amuloon occupation léegi mu am occupation mhm. kooku dañ koy nangul nit bokkul ak war teewul tamit loolu lépp ci biir déggante mën nay am nemmi konte mën nay am ak lu gis gise bi mën a mhm. mais yooyu yëpp nag bu daggee nag moom war moo xam ni kii moom dafa àndoon ak yow pour am lu mu jàpp rek ngir amul lu mu jàpp dafa àndoon ak yow ngir jàppool ci dara ba mu jàppee ci dara wan na la ginnaaw loolu nag moo fi nekk mu ko defee bari na ci société bi waaye ñaare foo ko fekk mujj ga du baax rek foofu rek lay mujj moom film bi moom fa muy jeexee mooy du baax war moom mooy dee rek xam nga dañuy nettali ñetti gaa yoo xam ne dañoo àndoon euh, ba xiif lool te ñàkk lool ñu ànd di dox ci àll ba yam ci benn xeetu trésor boo nga xam ni mu rëyee dafa ëpp mën na nekk jama mun na nekk or xaalis bu bari daal lay génnee ñu gis ko ñoom ñett te ñoom ñett ñoo ànd ñoo xiifandoo ñoo doon bokk ci àll bi di dañ dañ di muñandoo bi ñu demee ba gis ko muy xaalis bu bari ñu dind ca jox kenn ni ko demal ci biir dëkk ba nga jënd li ñu fa lekk gu ñu xiwloo comme que boobu léegi ñu ngi xiif jàmbat te amuñu lu ñu lekk yàlla indi na lii mais bi waa ji jëleel xaalis bi dem di jëndi lu ñu lekk ñoom ñaar ña fa des ñoo waxtaan daan ni alal ju bari ji kii yéene ko ci teraanga ji nañ fexe heure bu ñëwee rek bala moo wax nan ko rey bu ko defee ñun ñaar ñu seq alal ji mën a sirdoo alal ju bari ji waa ji dem moom it xel mi gaayee am moom la am moom it mi nga xalaat xaalis bu bari bee ma bàyyi fee non ñee yéenewu ma leen ci ñam yi ma jën damay lekk fii ba suur li ci des ma posone ko su ma demee jox leen ko ñu lekk dee ma ma jël xaalis bi dem eh te ñu mën koo séddoo te ñu mën koo séddoo ñoom ñett ku ne am ci teraanga ku ne nekk ci tedd nga mais gis nga iñaan li muy li muy iñaan iñaan li muy jur bi waa ji jëndee li muy jën lekk ba suur moom posone li ci des gàddu li ci des ni maa ngi koy yóbbul gaa yi bi mu ñëwee ba teg laataa muy wax gaa yi ni ko teelu mu faatu kooku bokkatul ci programme bi ñoom ñaar ña ca desoon yaakaar ni ñoo koy jariñoo teg ñam wa tàllal lekk bañ lekkee ba pare ni këlang dee kenn jëriñoowu ci kenn jëriñoowu ci alal ji iñaan iñaan iñaan iñaan a noonu war a ngi noonu mm-hmm. loolu mooy iñaan loolu mooy war parce que kenn ku ne mënoon na am teraanga mm-hmm. te doo yàqal sa morom dara kii mënoon na génn sax réew mi dundee ji feneen teraangaam mm-hmm. dootoo ko gisat dootu la gisati waaye comme que iñaan nañ ak war parce que kee dem na jëndi ñam ñu fexe loolu kee moom it ma ngay fexeel ñaar ñee fexe ma yëpp daal di mujjee këpp si seen kaw ay du yem ci bopp borom. kon gis ne nag jamono juñ toll nii war gi moom dafay dañuy xëy di gis ne de muy ci liggéeyu bërëbu liggéeyukaay yi. Mhm. muy ci kër yi muy ci nekkin bi nga xam ne nag ay nit dinañ ko nekk. Mhm. waaye comme tey ñaan ñu nga xam ne dañoo yàgg ànd ba kenn ku ci nekk am say occupation personnelle. Mhm. ku nekk nekk ci dara ñooñu dañuy des fois ñeneen ñi nga xam ne keneen ki nga xam ne nekkul ci benn occupation day jàpp que ni morom bi da koo war. est-ce que loolu war la wala tamit dafa nekk que ni daa am lu la tënk ba mënoo ànd ki nga xam ne moo di sa partenaire question la bu ma bu ma wax ji wax naa ko parce la du du tolluwaay Macky Sall fi mu toll nii. Mhm. Macky Sall fi mu toll nii wala Ousmane Sonko mi wala Barthélémy Dias wala ñoom ñooñu Ahmed Aïdara mi rek mi ngi nii suñu wet sax jarul sooy. Mhm. Ahmed Aïdara mi da nga daan romb fii. doo ko daan romb fii Ahmed Aïdara man dama ka daan romb fii. dama ko daan woo téléphone di ko jot. Ahmed Aïdara man dama ko daan woo téléphone di ko jot. bi mu jëlagul maire bi woo naa ko ni ko Ahmed Aïdara suñ kërëng kërëng yi nekk fii ci tali bi sonal nañu mu ni ñaanal leen ma jël maire bi ba mu toog ak léegi mënu ma koo jot. du du du du question dafa du question daf ma wor du question tamit dafa bon mais dafa am loo nga xam da ko dépassé dafa am foo nga xam ne daf ko dépassé mhm. jot bi mayeetu ko it tamit fi mu toog bu fekkee heure bu ñu woowee jot ko xam Ahmed Aidara deful li war li ko war mhm. fekkee heure bu ñu ko soxlaa gis ko Ahmed Aidara deful parce que nit tamit dafa am fu muy toll non dafay jafe nag parce que li mu war a doxal ku ko war a doxal dangay ngay jafe te dootoo am jot kon tamit loolu foog ñu nangu la ko xëy na ay ñetti copain ngeen woon daan ànd néeg bi yéen a ko daan boo ko xëy wàcc rek dajee ci néeg bi kenn dootul dem fenn nga xëy ba ci ak situation bi changé am ko nga xam ne moom bu ñu ko gisee tey bala ñu koo gisati xëy na occupation ba mu occupé loolu moo ko mayatul lii loolu tamit dañ ko koy nangul nit ñi tamit foog ñuy nangul nit ñi ngànt mais dafa géeg boppam ak dafa fuuy ak dafa dafa dem yoonam mag léegi gëmatul kenn ak non nangam déet nanga nang dëgg la am na ñoo xam ne ay warkat lañ mais warkat jërul soon ci biir relation bi ngeen di ànd boo ko boo ko ci boo ko ci testé tuuti nga xam ndax kii warkat la wala du warkat mm. kooku moom bu ngeen àndee bu waree di nga xam ni warkat la war bi du la mën a bett mais tamit nit ñi tamit dañ dul dañ dul dañ dul dañ dul dañ dul test ci biir ànd dañuy ànd rek di kërën kërën mais ànd tamit dañ koy jàngat di ànd di nattu sa morom nattu bi nag du question nattu boo xam ne koy natt di ko wax mais léeg nga nattu ko ci biir ànd ba xam kii lu mu doon ak kii fu mu toll kii ndax jar na jar na jox lépp mhm. wala jor na jox leen teel ko leen loolu dafa am solo ci ànd waaye ànd nit ki rek ni ko bëñax dugg ko ba mu jeex dugg ko ba mu jeex nit ñi bu ñuy léeg da ngay gis ko dajeeg nit ñaari fan ñetti fan rek jébbal ko léppam jébbal ko lépp wax ko sa problème àdduna amul lu koy nëbbati mm-hmm. amul lu mu koy deselati dara këram bu fa duggee lépp la koy ubbil bu demee këram yaakaar tamit foofu fu ne la war a dugg la waaw yaakaar te ñetti fan dong la bu ko defee ngeen daw un mois changement am nga ni waaj daf ma war waru la yow yaa war sa bopp parce que yaa dugg ci loo maîtriser wul ba pare defoo ca ndànk mm-hmm. wa ahbib isa ahbabta xubban muqaariba fa innaka la tadri mata anta naziun wa abrit isa abrata burdan muqaraba fa innaka la tadri mata anta rajoon loolu la waykat bi wax nee na nit ki buy dugg day dugg ndànk di dugg ndànk di dugg ndànk ba mu wër ko li muy dugg dëgër na mu door a jàpp bu ko defee heure bu problème amee rocceeku dana mën a yomb te problème du am booy bañeet nga bañ ndànk bañ ni ngay bëggee noonu ngay war a bañee ndànk waaye bañ nit ki rek bañ léppam ku la wax nga du mooyu non kooku bëgguma dégg mbiram ndànk nag ndànk ndànk baax na de defal ndànk bul sore ci moom parce que doomu aadama xam-xamam sorewul mhm. te mbir yi ni muy sensé dafa gaaw exemple bi ma la jox ci ay dara rek doy na ci sir mhm. mu fekkoon moom ci àndin wu ñaaw bu ñu waxee nga ni kooku du nit ku baax nangam ak nangam xëy tey ay données yëpp changé mhm. nga bëgg ñëw di fuglu te moo fees der réew ñu ci bari occupé te yi di wax kañuy waxal tey ji ñoo ko gënoon a noonu ñoo ko gënoon a bañ ñoo daan yëkkati kàddu yu ñaaw di ko sànni tey mbir yi xaw a commencé di dox rek nga ñëw occupé télé yi maa xam kii ba ñuy ànd nangam te ba ngeen di ànd waaw yooyu yëpp ñoo bokkoon école yooyu yëpp tamit dafay waral dafay waral yi nga xam day indi ay wor mhm. te wor moom dafa baaxul wor dafa baaxul ci diine ji alxiyaana moom lislaam da koo tere yàlla nee na dee leen matal kóllëre wa aw foofu bil uqud yàlla nee na dee leen matal kóllëre dee leen ko topp ba mu jeex am na ñoo xam ne ñoom kóllëre dañ koy topp ba mhm. ñoo xam ne àjjuma bu jot ñu dem ci armeel seeti wuñ fa seen yaay seeti wuñ fa seen baay seen xarit buñ fa amoon dong moom la ñuy seeti ajuma bu jot ñu dem nemmeeku ko ñoo ñi ngi topp kóllëre waaye am na ñoo xam seen kóllëre moom faatu la yam boo faatoo jeex na pare nañ ci yow uti nañ leneen ak nangam ak nangam yooyu yëpp du kóllëre ah yooyu yëpp ci wor la est-ce que wor moom daa am àtte boo xam ne moom lañ ko jagleel comme ni ñuy àttee comme ni ñuy àttee fenkat comme ni ñuy àttee est-ce que warkat dafa am àtte bi maanaam du leer du question at àtte bu ñuy teg ci kawam pour mu dellu ci yaramam mm-hmm. mais bàkkaar la bàkkaar la bàkkaar la boo nga xam ne yàlla moo koy réglé ah, du question nag comme ni nga xamee ne ay njaalu ñu ne nañ ko teg nangam kooku lislaam ko tëral ko xas gor ñu ne nañ la def nangam mais wor moom dafa nekk loo xam ne ab bàkkaar la tegee ci sa kaw kooku nag moom bu la toppee te bawu la mën na la tàbbal safara moom wor parce que bàkkaar la ay safara dégg nga kon nag bu ko defee nga xam ni wor nekkul loo nga xam ne lu mën a baax la ci ci ci ci ci ci li nga xam ne moom mooy diine mhm. war baaxul ci diine mhm. ndaxte war di ko koy def dëgg dëgg naa feq la mhm. ay war war dëgg ki koy def foo fekk rek jenn jikko ju ndaw ju ñuy wax naa feqan ci biir ndax yonent bi daf ne aayatul munaafiq salaas naa feq moom boo ko bëggee xam ne nee na ñetti jikko yi rek xool ko ci moom isa xadasa kazab wa isa waada axlaf wa isa tumina xaan koo xam ne buy wax balaa wax jee jeex nga dégg ni wax ji ay fen a ngi ci nee na foo ko fekk kuy def loolu xamal ni naa feq la wa isa tumina xaan koo xam ni boo ngeen fasantee kóllëre mu firi ko wa isa waada axlaf bu ngeen déelantee joxante rendez-vous rendez-vous ba yaa koy topp waaye moom toppatoo ko ba mu la ko waxee la ca pare nee na ñett ku ko dajale yaa ngi naa fekk pire ku ca am benn mos nga dara ko ci am dara mos nga dara ci naa fekk euh, euh, euh, tey mën tey tey sax tey boo nee nii comme tey ji ñu ni tubaab tubaab boo ko boo nee ko tubaab da naan man gis naa ay tubaab mu wax leen heure ñu ne ma heure sénégalais da nga koo tàmm mënoo leen jox heure bu ñu <laughs> euh, maanaam tubaab ni muy respecté heure man na xam nag yàlla dafa maa dimbali damay kii euh, man fu ma war a dem quinze heures maanaam 14 heures 45 mi ngi ma fa fekk ma toog. jarul leeral parce que man muy muy dema jéem a démasqué wu di. non non du ma tardé. parce que non non boobu non non eh, pas eh. fausser rendez man hmm. du ma fausser rendez-vous. Hmm. wala su ma amee lu ma empêché man ah. su ma amee lu ma empêché. balaa muy ñëw laa lay woo ni la. nan def lii ak lii. Hmm. mais comme nga toog di ma xaar non. duma ko def man kenn mais hmm. waaw léegi nag. waaw léegi comme tey exemple nga nekk ak sa xarit tamit. Hmm. sa xarit nga nekk ak moom. tey loo xamante ne nii chaque jour. yeneen nekk. Euh, tey ngeen di partagé yu bëri. mais saa saa saa bu ngeen toogee yow boo jógee rek moom daanaka mi euh, euh, ngi nekk ci. yow di yàq sa euh, jël say wax di ko yóbbu feneen maanaam loolu jëw la wala woor la parce que tey sama man ak man ak yow ñu nekk ay xarit tey man du yoon may jël say yëf di ko jox keneen quoi wala bon may jël sa may jël ngay jël sama yëf di ko jox keneen wala may jël sa yëf di ko partager keneen loolu xam nga tey nit ñi ñu ngi naan kii de da koy lekk lekk da koy maanaam lekk mooy di wax ci ginnaawu nit di yàq deru nit comme man ak yow ñu toog nga jóg ma naan ma woo kii téléphone naan ko diw de lii ak lii ak lii loolu noonu wor la ak ak xaritoo wor la wala wala jëw. loolu ko jëw la non am na ci yoo xam ne jëw la. Ah. am na ci yoo xam ne wor la. Hmm. cadre ku ñuy wax Baye MC wala MC Niass alxiyaana la wor la bu dee ci diine lañ ko dugal dafa wor. waaw dafa wor parce que dafa wax ak ndaw si enregistré ko enregistré bi njëkk a nekk danger. Mhm. di nekk loo xam ne l'islam dàq parce que amul ci avis ki muy enregistré tàgguwu ko te it ko maa ngi lay enregistré. te ndaw si bëggul mu enregistré ko mu enregistré ko. boobu rek doyoon na doyoon na sëkk toor même bu fekkoon ne partagé wu ko doy na sëkk toor loolu rek l'islam mën na ko ci punir yemul ci loolu mu wili pande ko mooy mu distribuer ko ci mbooleem plateforme yi. Mhm. ci TikTok beeg internet bi yëpp ñu dégg ko. ma ni audio yi mi ngi ci internet bi da koo yóbbu da koo yóbbu ci juge bi ak da koo yóbbu fu mu ko mën a yóbbu moo ko fa yóbbu moom bay MC moo ko yóbbu moom MC mm, Niass parce moom dong moo ko amoon moom MC Niass moo ko yóbbu moo ko enregistré ci téléphone am moo ko génnee mais est-ce que loolu nekkul woon li gën ci askan non loolu tamit maanaam xëy na bu ñu toppee débat boobu day gudd day mais gënul ci askan wi mm-hmm. parce que tooñ baaxul ndaxte boo fekkee déglu nga audio yi audio yi test la mm-hmm. audio yi la ko kii kii kii wax dafa am lu bëgg a kii wax dafa am lu mu bëgg a xam léegi nag yow ngay wax ak nit ki bëgg am bëgg am loo xam dem enregistré ko vilipendé ko ci mbedd mi kooku kooku jëw la kooku war la jëw nga nit ki war nga ko ndax mm-hmm. ba nga jëwee jëw nit ki mooy mënoon ngaa wax nit ki direct ni ko li li ma lay def maa ngi koy enregistré li may def ak wax ak yow nii maa ngi koy enregistré mm-hmm. kon bu boobaa danañ xam ni yow mii li ngay def ñeme nga ko voilà ñeme nga ko wala ñeme nga ko sax mm-hmm. ndax jëw du dara lu ragal rek war wax nit ki dara jëw ragal la mu wan la ginnaaw nga koy wax kon tamit nit ki ngay déggante moom téléphone war ko wax ni maa lay enregistré waxoo ko xanaa di ko enregistré ci suuf kooku tamit jëw la parce que yi nga xam ne moom la ñuy fasante di ko firil seen bopp loolu dañ koy tuddee jëw dañ koy tuddee tamit war parce que léegi audio yi yàq na dëkk bi mhm. transfert audio yi kenn tax na mhm. kenn mënatu a waxtaan dara vocal yi léegi ñu yónnee ko transfert nga wax ngay wax mhm. yi ñu ngi koy déglu léegi wax nañ ne kuy wax téléphone lu ne la ngay wax xam nañ ñu ngi sous am na ay jamono ñu ni suñ téléphone yi xalifa général yi sax mi ngi woon sous écoute ñu ngi leen di déglu lu ñuy wax xam nañ yooyu yëpp nga di ko def ci ab nit ñoo xam ne dañuy wax ne ay jullit la te yàlla wax li mu wax ci suturaal nit nga xam ni nee na yonent bi nee na suturaal nit dana waral yàlla suturaal la yow mal xiyaam mm, nga xamoon ay faay yu garaaw ci nit xam ni boo ko génnee mu jur lu garaaw nga nëbbu loola suturaal ko ko suturaal ko loolu gis nga gis nga Xasan ak Xuseyn borom Karbala moo ciy hmm. kan. borom Karbala. waaw Xasan ak Xuseyn. xaw ma ko Xasan lañ rey ca Karbala. waaw Xuseynu mi nga xam ni moom mooy mooy mooy rakam. xamul kan moo ko rey. te moom mi ñu rey xam na ki ko rey xam na dañ ko poisonné te soxna moo ko poisonné. Mhm. munoon na wax ni su ma soxna moo ma empoisonné. bu ko defee ay mbokkam taxaw. def loolu faas rek la ko mais loolu xam na ko ba keroog bi muy sukkuraat daf ni damay dem rek. waaye duma ko wax kenn muy indi ay sama ginnaaw duma ko wax kenn muy indi ay sama ginnaaw ñu koy toppante mu nekk xeex bu kenn ànd ak moom ànd ak moom ba ni triix dem kenn xamul ko ko def te moom xam na ni jabaram moo ko empoisonné parce que dañ ko fay Yazid ibnu Muawiya moo ko fay mu war ko loolu mu war ko def loolu moom it mu am ngor gu toll ne ni xam naa ki ko def waaye dama koy deeyaale waaye duma ko wax loolu mooy dund mhm. loolu mooy mbaax loolu mooy bë loolu mooy bëggal nit ki mhm. comme li nga bëggal sa bopp mhm. waaye yow ko nit ko nga xam ne bu jekkoo rek dootul baale bu bu xamee rek dootul noppi. ku ci ëpp sa morom doole wan ko wan ko ko loolu moom bu nekkee ci àdduna bi bu yeboo ñu xam ne àdduna bi am na problème. waaw bu yóbboo ne àdduna problème. Mm-hmm. bu ko defee nag yàqu-yàqu jamono gi ñu gis nii mu ni fang. Mm-hmm. jëkkul tey. li ñuy gis nii nga gis nit ñi du ñu weli pande naa ñu jamono ji yàqu na. est-ce que tey gënul fes. gënul fes gënul def dara. mooy est-ce que mm. nekkul nit ñi ñoo yàq jamono ji. Ah, du dara jamono ja jamono jamono jamono yonente ba léegi nii la jamono mel. nii la waaw nii la jamono mel. jamono bi nga dégg ñu naan la dafa garaaw. Mm. dara garaawu fi. Mm-hmm. dafa nekk ni dafa am lu am te amul woon. mooy lii ñu nekk nii mooy lii ñuy wax ñu ngi wax fii ñu ngi ñuy seetaan ci tuut lii nag moo amul woon waaye ñaawteef moom daka jekk mi ngi woon ci àdduna bi. yàgg na ci réew yàgg na ci àdduna bi. Mm-hmm. tuumaal as gor yàq as gor waaye yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku ko gën a fort. kenn gën gi mi neef soxnaam ñu jiñ ko njaalo sittuna Aïcha hadisul ifk Abdullah ibnu Salul raisu naa nafiq yi sittuna Aïcha ànd ak ñoom xare yonente bu daan dem xare bu xare ba naree diire dafay wantale ay soxnaam kii laay yóbbu mu wantale tey ni Aïcha lay yóbbu soxna yonente bu ñu leen daan yóbbu dañu leen defal teg teg yi ñuy teg ci kaw giréem yi mhm. dañ koy def mu mel ne ab néeg rek nga xam ne ñoom kenn du leen gis dañ koy defal ba mu neen la ab néeg rek ab tànt rek teg ko ci kaw giléem yi yonente bi dem xare ba wàññeeku ñu yësal benn barab di noppalu soxna si génn am aajo yu muy doxi génn na ci xayma gi kenn yëgu ko mu dem yonent bi ni ay woon nañ leen départ gars yi dàq giléem gi rek mu jóg ñu yaakaar ndaw sang ci biir ndaxte ndaw si nekkul ci biir ñu dem bàyyi ko gannaaw biñ demee bàyyi ko ginnaaw ndaw si dafa faj aajo ba pare génnaat xool ndakati foofu kenn ñu ko ñëpp dem nañ mhm. mu ñëw fi giléem gi giléem moom tëddoon fa la toog moom tëddoon jàpp njàmburam yonent bu daan bu daan tukki day am ñoo xam ne ñooy ñooy toppaat ci ginnaawam bu demee lu yàgg dina am ñu toppaat ci ginnaawam di xool ba xam yu wadd ak mhm. wala bagage yu ñu bàyyi ci ginnaaw am ca benn waay boo nga xam ni moom moo gis loolu moo dox ba seen naa Aïcha mhm. xam ni ni kii ndekete soxna su Yonent bi la mhm. bi mu ko séenee dafa wane ginnaaw nangu ko sax xool wàcc gileemam gi nga xam ni moom la waroon ni ndaw si yéegal ndaw si yéeg mu jàpp ci nos ko gileem gi mu aj di ko wamat ko ba dugg ak moom ñu seen Aïssa ci kaw seen waa ji di di di di di di kii di womat gileem gi rek xel yi xel yi tàkk. waaw ñu ni laa ilaaha illallaah defante nañ ca àll bu lañ bëgg a def. ci soxna si yonent bi laa wax de. Mm. surtout naa Aïssa doom la ci Seydina Abu Bakr ni Siddiq coow li nar a tàkk coow li nar a tàkk ba taal dëkk bi ba nga xam ne ginnaaw yonent bi sax coow loolu topp na Omar. Mm-hmm. Seydina Omar coow loolu coow coow Seydina Ali laa wax coow loolu topp na ko ba nar ba taal lislaam bi loo xam ne kenn xamul nu mu te loolu lépp dara waralu ko lu dul rek wax wax dara waralu ko lu dul ñaawteef ma ni comme que ñaawteef fu toll nii moo amoon nga xam ne addisul kif if lañ koy tuddee mm-hmm. nga xam ne duur gi ñu duuraloon situna Aysa ba nga xam ne situna Aysa sax bi alxuraan wàccee seetal ko yonent bi ni ko santal yàlla daf ni ko yàlla doo nga lay sant waaye yow Muhammad sax du ma la sant mm-hmm. waaw joxar bi yonent bi ne ko yow sax du ma la sant ndax ci ñi gëmoon mbir mi nga nga xam ni kon histoire bi garaawoon na. garaawoon na ay naafeq ko def. dëgg la ay naafeq ko def ay fexe ko def. naafeq ko nga mbon dafa yàgg ci àdduna. mbon na fi. mbon dafa dafa yàgg ci àdduna mais nag lii tasaare mbon léegi moo bari. Mhm. loolu rek mooy wax. waaw dafa dafa ñii ngay aj rek. waaw di nit ñi di la jey. ngay ñu lay jey ngay aj rek. ngay jeyee TikTok bi neex lool. nga dugg ci internet mu yaatu lool ngay gis lu ne. Mhm. yaakaar lii amul woon amoon na. dëgg laka daan wane nag moo amul woon waaye mbon yàgg na fi kon nag ñun ñu góorgóorlu waat mhm. jéem a changé waat te xam ne àdduna du kër mhm. li maam Abdou daan wax Baye Sam Baye di ko wax àdduna du kër du kër de loolu moo tax moo tax su ma nee on est en vacances laay dañoo vacances non dañoo vacances merci beaucoup ah, nga koy waxee chaque jour bu taxaw bi naan on est en xam ne école day jiwaat wallaay wallaay dafay jeex kon mbokk yi dañoo vacances nañ bàyyi xel dañoo vacances eh, jërëjëf yàlla sunu baax jëm fee góob lu baax yu non on est en vacances yi bàmmeel xat na de ak xat bàmmeel raglu na de amul tournée amul alma mbaaj na mbir nit damaa yaakaar xanaa dañoo gëmul li yàlla wax de est-ce que xam na nañ nit bàmmeel am na mm-hmm. ah. tim nañ bàmmeel ba tey ñu wàq nit suul ko ci wallaay wallaay wallaay wan ko ginnaaw ñu war a ñëw laaj di ko laaj te foog ñu laaj la ci biir bàmmeel yii ku ko bàyyi xel bàyyi xel ñetti fani bàmmeel bàyyi xel taxawaayu bisu pénc nga xam ne nit dana taxaw aw ñaqam commencé cay bëti óomam tàmbasee ci tànkam ñëw moom ba ci ndoddam nga gis ñoo xam ne seen ñaq da leen di mët ba dootuñu mën a sax wax mbokk yi bis boobu ku ko xalaatul yàlla wàccee jant ba mu tiim ruux yi ba mu tiim euh, bopp yi nga dégg ni ni ni yuur yi di baxee bis boobu ku ko bàyyi xel di nga xam ne àdduna bii du kër te dara jaru ko yàqante gi ñu nekkee ci àdduna dara jaru ko dara jaru suñu diggante ak yàlla du tardeel kenn yomal xiyam wallaay hmm, dëgg la suñu diggante suñu gis nga diggante nit ak morom giñ naa ko ci yàlla lu penc ma gën a yàgg rek. ñoo mhm. ñu ko yóbbee. ñoo ko yóbbee est-ce nekkul ni nit ñi yéene wuñ ñeneen yeneen nit ñi jàmm hmm? <laughs> maanaam yéene nit sa moroom jàmm comme miftaax mi ni ma ko yéenee jàmm mu yéenee ma ko loolu day doxal day doxal day doxal àdduna. mais loolu mooy loolu mooy. mooy yoon mooy mooy li gën a fort ci àdduna. yéeneente jàmm jàmm ci boppam mooy mooy àdduna mais maanaam ku nekk di xëy di fakkatal morom. di waa ji naan jàmm gënu ay. jàmm gënu ay. wallaay demoo kenn du dem. demoo kenn du dem. loolu loolu baaxul. mel ni yow yaay yàlla mel ku ànd ak yow gën ñëpp. Mhm. ku tàqali ko yow yées ñëpp. Sénégal gis ñaar ñu daan ànd. bu ñu tàqali ko waxante bu ñaaw bi commencé lu baax wallaay bul ma tuddalati kooku doo ci yam xam nga bu fekkoon sax da a yam da ngeen a da ngeen ko mbir mi jeex

ni taxaw ca caméra yi tamit fekkoon dañoo taxaw jàkkaarloo miirub kese duñ jël dara. duñ jël dara wax ñoo kon ñoo koy bokk. wallaay dëgg lu muy bëgg bëgg gouverner ay nit lay gouverner. Mm-hmm. buñ ko fi tegaloon xare ki bay mu am problème ay nit dong lay mën a góor dina ci miss dina ci miss bi bay bëgg a dee loolu dong la koy def miss bi di miss ba xëy boo moytul sax ñoom bëy miss ko kon nag nit ñi moom ala kulli xaal nit ñi la la yàlla boole dëgg la nit nit lay wax soxlaam nit nit ay garabam nit lay tawat soxlaam uh-huh. nit tawat la soxlaam nga jàpp dafa ñàkk fayda wili paande ko ba pare fajaloo ko soxla bu doon sax nit ñi léegi boo leen tawatee soxla dañ koy faj ba pare door a coow mais dañuy xam sa soxla ba pare duñ ko duñ ko faj ba pare wëree la dëkk moo tax léegi lu mm-hmm. jamono metti metti bu yóbboo nit ku nekk jéem a góorgóorlu ba am ci loo jàpp xamit ñi ngay tawat soxla waaw parce que dañ lay yàq te duñ la fajal dara. ayca kon mi ngi noonu de mi ngi noonu de mi ngi noonu de. ah imaam Miftah débat tey bi mu mel ne rek amati na solo waaw waaw xam nga euh, daa am yoo xamante ni daanaka sax euh, li naan la mu saf ka ko macca ko xam. xam nga imaam yi day baax léegi nag ñun dañ koy téye fii ba euh, ba beneen nga xamante ni ñii seetaan ñi ñuy topp dinañ am. maanaam dañuy taxamtiku àjjuma ji ñëw pour kay ñu lay déglu. <laughs> parce que que mbir bu neexee da nga leen di ñamal. Mhm. parce que suba am na. waaw te yaakaar naa nag euh, euh, euh, yal na yàlla def jàmm wéral la. Mhm. dëgëral la ndax lii ngay wax ni am na solo am solo goo xamante ne nii. xam nga tey yii nga wax nii yëpp chaque àjjuma man damay am yu bees. dëgg la a àjjuma nga jàngee film bees maa ko moom maanaam àdduna ñëpp a vacances yi. dañoo vacances yi comme ni maanaam ñibbi bi nii ñibbi du ñu yóbbu dara. laay mu mel ne nag li ñu cërale woon ci waxtu dafa daal di jeex te it débat bi tolloon na foo xam ne bëgguñu woon sax mu jeex ndax chaque ajuma nii lay demee chaque jour ak leçon bu bees boo xam ne mën nga ko fee jàngee hmm. xanaa danga koy jëfee wala nga ñàkk koo jëfee rek moo fi am waaye saa su ne rek hmm. njëriñ la ñuy gis ci waxtaan wi hmm. comme tey nag daa ñëw ak ay kaasam laay dee ko jox lii par jeudi dégg nga bëgguñu Mifta ñëw fii di tàngal bëgguma yooyu dama koy ragal. man de damay créer ko junj téléspectateur yi nañ ko dégg wax leen léegi nag xam nga léegi nee na sa jeune yi dañ koy jox débat boo xam ne da koy préparé ndax bëggul fii sax man damaa neex ndax ay làmbatoom tamit en daal xaw ma dangaa làmbatu xaw ma mais nga de nii nga ko ciix xam naa nag doon ñu ko donc ñu baal ma Mifta maa ngi jéggalu mm-hmm. xam nga léegi lay charge yi day bari donc su ma génnee fii damay nekk si yeneen mhm. maa ngi euh, joor tamit ma dimbali ci yooyu ndax euh, ah macha allah yal na yàlla defal jàmm <laughs> comme ni mais xam man euh, man loolu dama koy bàyyi xel man man bëri naa caaxaan trop mm. mais chaque jour damay jàpp ni man suba duma fi nekk man chaque jour mais damaa bëri man maa maa dàq déconné mm. mais aw ma kenn problème mm-hmm. man ñëpp laa yéene jàmm lool moom loolu moom àdduna kii bu nu àndee di ñibbi Maodo xamul lu may wax hmm. maa ngi lay jiitu parce que bu fu ne ngay jàll waaw mais nag loolu yàlla sunu borom la quoi mais nag nanuy fàttaliku parce que tamit li nga wax léegi lu am sens la pourtant chaque jour ñu jàpp nit yóbbu ko ci armée yi te un jour dinañ la jàpp yóbbu la mm-hmm. léegi nag loolu dañ koo war a sóoraale man moom damay jàpp ni saa chaque matin du ma yeewu man waaw mais nag yàlla na nu yàlla defal jàmm may ñu dëgër may ko ñi nga xamante ni ñëpp àdduna bi yëpp way dawlu yi tamit ñu leen ñaanal jàmm mm-hmm. léegi euh, euh, kiiwal après mu tëj parce que tey mm-hmm. comme ni ñu doon loo xam ne lu am njëriñ la comme oustaz euh, Miftaax Miftaax mm-hmm. chaque àjjuma dafay daal di ñëw nekkandoo ak ñun indi ñu ay sujets yoo xam ne c'est très important parce que day nekk loo xam ne amaana xamuñu ko woon wala ñu xamoon ko sax dëgg suñu tànk comme nag loolu lépp luñ fi wax mu doon loo xam ne jariñ na leen bu fekkee daam lu dëng ci li nga xam ne jot nañ ko fee wax aussi ñoo ngi jéggalu ñu bàyyi ki nga xam ne moo di oustaz mu daal di tàggatoo laay nga tàggatoo tey ñu jeexal ak suñu partenaire mhm. waaw xanaa di santaan ñëpp di sant partenaire yooyu nga xam ne may commencé daa mel ne tuddoo leen de tudduma leen mhm. nañ ma ko jéggal waa cosmétique maa ngi leen di ziar bu baax di leen wax ni man heure bu ma ñëwee samay dama koy laaj gisaguma ko ba léegi waaw boobu ñaari yoon te fekkuma sama diw moom pare naa ci king dootuma leen tudd su ma ñëwee ni maa ngi tudd sponsor yi rek pare ci pare <laughs> waxal leen ma ko waxal leen yeneen ñu andi ma ko dégg dan yaa ngi dégg loolu jiw bi lay xaar dan damay ñëw fii di waxtaal la waru may wax dégg nga di nuyu waa Sembar ah. ña ca Noflaay borom borom bâtiment yu baax yi mm-hmm. maa ngi leen di nuyu baax di leen ziyaar bu baax di leen wax ni ku bëgg kër gu baax rek dawal Noflaay mm-hmm. bul yóbbu pàkk bul yóbbu dara mm-hmm. yóbbul million yi doy rek ni leen ni leen kër laa bëgg ñu jox la ñoo koy dox jox la caabi jox la fu dul taa tabaxal la ko karool la ko mëbuleel la ko dangay ngay ñëw rek taal say vente loolu di wane ci biir kon yàlla na yàlla taal say lamp yàlla na yàlla defal leen jàmm ñoom waa seen baat ñuy def liggéey bu am solo tamit mhm. ndaxte tamit bu fekkee da nga bëgg kër te doole ji demee fa noonu nga mel ne Miftah xam nga ay mit am na ñoo xam ne moom ay ay weer ba weer la ñuy taqale dara bu fekkee da nga bokk ci ñooñu mhm. boo demee waxtaan ak ñoom ñu teg la ci ay règle weer wu dee bu dara ruusee nga dem sànni ñu bind boo amee une tonne ñun la am nga fi une tonne ciment boo amee fer ñun la am nga fi nangam fer ngay def noonu di def noonu dem am nga pàkk. Mhm. boo amul pàkk it nga def noonu. nga def noonu ba am pàkk départ nañ commencé fas yéene wax la fay tabaxee. kon daal ñi ngay jàppale nit ñi bëgg na ñëpp am kër. ndax kër dafa di farata. Mhm. man nag moom daara laa bëgg. yow daara nga bëgg. waaw man bëgguma kër daara ah, laa bëgg ñoom ñu ngi koy dégg wax naa leen ko dégg nañ ko kon yàlla na yàlla defal leen jàmm. moom koy jaay. on est à vacances vacances bi koy jaay on est à ne mooy. Eh? soxna Dior Dior man du ma ko waxati sama bi dama ma coro waaw Coro Ndoye xam nga ko n'est-ce pas Coro waaw moo nekkoon yor yor géej waaye moo tax mais Dior maa lay nuyu baax di ziar dégg di nuyu borom verre yi hmm. laay sol rek mu dem soli di nuyu gars yëpp baax baax di nuyu waa Rési hmm. moom dafa moo koy ziar bu baax a baax maa lay ziar hmm. di ziar mboolem ñi nga xam ne ñuy topp ci internet bi di leen gërëm di baalu àq ñëpp nag lu fi jub rek mbaaxuk yàlla la lu fi dëng ñu xam ne ndongab Serigne Makhtar Diagne bii nga xam ne fendeegul ijji moo ani alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bu ijji fe bu ijji feeñee de waaw léegi nii ndax euh, maa ngi gërëm ñëpp di sant yàlla di jullu ci yorante bi di di di nuyu sama di sant di ñaanal sama yaay ak sama papa ak sunu waa kër ak sunu waa kër sa bàjjan sama yaay bàjjanam la ndeysaan euh, loolu nekk lu doy waar di gërëm nag euh, di nga xam di souhaité nag sama xarit ku nga xam ni Moodu Ndaw kooku sama fans la moom dafa maa bëgg ndax daf ma koy woo di ma ko wax moom anniversaire am la samedi la moom mooy le 24 Euh, donc moodu mu ndaw maa ngi lay wax dundal ba say may di baawaan euh, ku ne xam na ni dinañ la indil ngato yi jox la sondeel yi nga ëf ko lekk ngato euh, yi parce que ëf day guddal fan loolu oustaz Miftaax jox na ci jàngat nee na ëf sondeel ci anniversaire day guddal fan macha allah Modou bu ndaw nanu rëkk junjum yi sol palmaan wax ni wuree wa dem na këng waxi mag dem na dañ daal di bàgg war na mbaam happy bës to you cent ans sans ordonnance ah di wax tamit Adja Touré sama rakk ju baax ji borom sañse yi maa ngi koy bëggee mu nekk ku baax saa bu xëyee daf may message te ba pare daf may seetaan loolu rek daa neex mm-hmm. ajaa loo bëgg yàlla na la ko yàlla defal képp ku bëgg sance ci seddaay bi nag ni king di joxe di fattee fa tur yi naan fattal ma foofu <laughs> naan fattal ma foofu di di defar karo yi yaram yi mm-hmm. Adja sance yi noonu la ci mel Adja Touré borom zone de boroom a ah lycée Mamoulaye maa ngi lay bëggee di la ñaanal jàmm ak tawfiq di wax imam Miftah mm. Oustaz Miftaax maa ngi lay bëggee di la ñaanal eh, soxna Dior di ñaanal tamit waa Rési poupée noire tey ñoo bokk oto man moom bu bokkee oto day xëm ci oto bi moom balaa wàcc day réservé damuy ree bu ñëwee ci fii